di wax par exemple ñun ay bandi lañu ñuy yàq forêt bi ñun duñu yàq forêt parce que exploitation bu ñu def ci yoon lañ koy teg. ñun fédération nationale des professionnels du bois pour la reforestation et la préservation de l'âme, parce que fédération bi séeréer yaa ngi ci Sénégal ñu ci bëri si ñu ngi ci Sénégal les 80% ñu ngi ci exploitant forestier ñu ci ñeneen c'est des commerçants nekk dans le secteur du livre. donc c'est une une grande fédération bi nga xam dañ ko def pour que nous nous par exemple dans la légalité. parce que nous sommes ne Tamba nous sommes yàq Tamba à bi du mais lu ko waral moi li ñu tëj Ziguinchor tëj Kolda tëj Sédhiou kon ñun ñu lancé un appel au président de la République son excellence Diomaye Diakhar Faye et au premier ministre Ousmane Sonko et à son gouvernement nañu jàppale parce que ay sénégalais lañu exploitation forestière légale la nous def nañu de zone Jigensor, Kolda Sédhiou suñ ko défé rek non seulement nous ñi nek ci secteur dinañu liggéey di jàppale sen njaboot mais fi pression bi nek Tamba dootul am mais déjà ya ngeen di wax par exemple ñom gouvernement bu bees bi dañuy lutter contre le chômage contre le sous-emploi contre par exemple euh, qui l'émigration clandestine contre la pauvreté tay société seetee yu nekk a biir secteur bi soo seetee un yu secteur yi bu nekk li mu ci ginnaawam sans compter les exploitants yu si nekk mais ñooñu ñëpp ça fait six mois ñu ngi toog defuñu dara loolu am na ñeneen sax ñu ci demoon keroog wallahi ci bateau yi gaañu na ñoom Babacar ak ak ñeneen ñun sénégalais lañu ay citoyens sénégalais lañu nous sommes des patriotes